bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim allahumma callimnaa maa yanfacunaa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 moo ne bokk na ci xéewal yooyu xéewal yam ñu yenkeewal ci waxtu su néew ci ginnaaw ginnaaw buñ doon joxee waxtu julli fajar bokk na ci xéewalu ibaada bi nga xamante ni jullit yi la ko yàlla jagleel gannaaw bu ñu déggee noddukat bi di yëglu ne julli moo gën nelaw ba ngeen nekkee mooy fa noddukat bi di wax ne asalaatu xayru min an nawm xéewal yooyu yàlla koy xéewalal ki ko neex ci waxtu wu bu la yàlla may xéewal bu toll ni mu dellu la sa ruux nga yeew dem julli fajar xamal ne yàlla xéewalal na la xéewal woo xamante ne yaay ki ëpp sens ki ki ko amul wala ki ko jëfandikowul ba tax na yonent bi nee na xéewal woowu noo yàlla xéewalal nga jóge ko ci nelaw boobu bi nga ximiliku xam ne waxtuy fajar jot na lu njëkk la nga war a def mooy da nga war a sant yàlla ne alhamdulillahi ledi mboolem xëytu cante yu mattale yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma dundal baada ma amaatana gannaaw bu mu dogale sama jëmm ji dee bu ndaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla buur bi tabaraka wa la ñuy dellu subhaanahu wa taala ba noonu la ñuy sante yàlla ba léegi ci xéewal yam ñu xéewalal ba ren ji ubbite école fekk ñu fi bu daaw weesu na ñu ngi ci bu ren ñaan yàlla suñu boroom yàlla ñu yàlla may xam-xam ñu di ko ñaan yàlla di ko ne allahumma allimna ma yanfauna yan nañu yàlla xamal la njariñ wanfana bi ma allamtana yan nañu yàlla njëriñ ci lim ñu xamal wa zidna ilman yan nañu yàlla yokku xam-xam moo ne loolu la wàcc suratu taaha wa qul rabbi zidni ilman ñaanal sa borom ma bind sa cerveau ba ngay làqee xam-xam fa xam-xam yi di stegow logiciel bay sauvegarde xam-xam yi yàlla ma ko bind muy installé ko ci sa biir bopp yàlla woowu bindi béréb boobu ci sa bopp bi yàlla woowu la wax ne moo la ne ñaan ko mu may la mu yokk la xam-xam ba tax na ngeneelu xam-xam démb yi naa ngi ñu doon topp ci suñu waxtaanu démb waxtaanoon nañook yenn yéen lenn ci lu aju ci lépp loo xamante ne mooy njariñu xam-xam waaye mooy njëriñu kay sàkku xam-xam ba tax na bu ñu demee xool ci alquraanul karim ci sotul baqara muy ñaareelu saar ba yàlla wàccee ci alquraan boo ko tijjee ñaareelu saar gannaaw fatiha mooy sotul baqara boo demee xool am na aaya ba fa nekk ba buur yàlla tabaraka wa taala bëggee wàccee suñu maam aadama alayhi salaam ci kaw suuf si waaye mu am ay mbindaafoon ya nekk fa moom ñu opposé wu daal taxawal seeni kalan am lañu wax yàlla léegi yàlla bëgg a wàccee suñu maam aadam alayhi salaam ci kaw suuf si waaye nag ñooñu opposé wu opposé yàlla ngir dañ koy contour waaye dañ ko def rek ngir lay neex yàlla lay soob yàlla la nga xamante ne moom la yàlla di kontaan si ñoom waaye nag buur yàlla ne leen man xam naa la ngeen xamoon inni alamu maa laa taalamuun gis nga xam-xam la fi yàlla tudd waaw man yàlla xam naa ci sama xam-xam la ngeen xamul ci seen xam-xam yéen allahu akbar waaye buur yàlla bi léegi nee na malaaka yi comme yéen a bëgg wàcc ci kaw suuf si ma bëgg a wàcc ki ma soob ci kaw suuf si léegi nag kaay leen ngeen dugg salle de classe bi nga xamante ni dam leen di examen dam leen di jox épreuve yéen nag ki ma bëgg a wàccee ci kaw suuf si ma xool ana mooy gañe waaye ci nammeelu buur yàlla mu daal di xamal aadama épreuve bi nga xamante ni mooy not yu baax mu daldi ko jox mu digte aadam la nga xamante ni mooy bu ko aadama waxee mooy aadama mooy gañe examen boobu su ko defee aadama mooy wàcc si kaw suuf si waaye nag toujours yàlla mu jëfandikoo wa allamal aadama asmaa kullaha mu daldi xamal gis nga turu xam-xam bi léegi ñëwaat na ilm wa allama yàlla daal di xamal kan aadama ki mu bëgg mu wàccate kooku mooy suñu maam aadama su ko defee qissa bi mu ngi ci baqara nañ leen bokk xuusandi aaya 30 ba keroog ñuy àgg ci aaya 33 wala 34 ba léegi bu ñu àggee ci aaya ñu yem foofu su ko defee moo doon suñu aaya ba ñu buggi bu ñu war a dugg ki yin ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97 point ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa yal nañu ko yàlla yombalal ñu defee ko comme ni mu nekkee incha allah bi iznillahi subhanahu wa mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala keroog bu mu bëggee wàcce suñu maam aadam alayhi salaam ci kaw suuf si dafa am lu mu def te bi ko doon def yonent bi fekkeewu ko xeetam yi kenn si ñun fekkeewu ko waaye ngir ñu war a xam la xewoon foofe il faut ñu ubbi alquran ñu daldi ko nafar pour xam la xewoon fa yàlla jamono ba mu doon wàccee aadam ci kaw suuf si ak la si aju kon ki bëgg a xam ne histoire bi tëdd nang ñu may nopp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi bi iznillahi subhanahu wa taala saa'ilina mawla jalla wa ala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yéen nañu yalla may wërsëg boo xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy jël la ci gën a rafet waaye dañuy jëfe la ci gën a taaru amin ya rabbal alamin mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran baada audu billahi min alsheytaani arrajim wa id qaala rabbuka lilmalaikati inni jaacilun fi l ardi xalifatan qaalu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wa yufsiqu ddimaa wa naxnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qaal inni aalamu maa laa taalamuun loolu di benn xam-xam wa allama aadama al asmaa kullaha thumma aradahum ala almalaikati fa qaal anbi'uuni bi asmaai haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaaluu subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alalimu alxakim qaala ya adam ambi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qaal alam aqul lak alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard Allahu akbar qaal alam aqul lakum inni aalamu gayba alsamawati wal ard wa aalamu maa tubuduuna wa maa kuntum taktumuun sadaqa allahu alazim mbokk yi ñenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot mbokk yi nañ leen jox xam-xam gëdd nañ leen jox xam-xam gëdd nañ leen jox xam-xam dayoo nañ leen jox boroom xam-xam yi gëdd ñu jox leen seeni dayoo ñu di leen teg ci béréb yi ñu war a waxee moo gën ku jóg ñu teg ko ci waxukaay moo gën ku jóg ñu jox ko mu di wax ci waxukaay yi nañ leen xoolaal suñu doxalin xam-xam dafa foor xam-xam dafa foor xam-xam dafa foor yàlla dafa fonk xam-xam yàlla dafa fonk boroom xam-xam nañ leen fonk xam-xam nañ leen fonk boroom xam-xam yi moo gën ñu di leen doyadal yàlla di leen minimiser si pénc bi matu ko matu ko exame bi yàlla wax ni suñu maam aadama la ko yàlla jagleel ak malaaka yi malaaka yi nga xamante ni ay malaaka yu foor lañu mbindaa foon yàlla yu foor yàlla féete aadam dicté aadam won ko épreuve bi lu laata ñuy dugg ci classe laata malaaka yi di ñëw yàlla dina aadama xamal na ko ngir moom moo war a wàcc ci kaw suuf si ay tey doomu aadama yooyu bu dee ñoo nekk ci kaw suuf si ñuy wax rekk ci teguñu ko ci benn xam-xam ñuy wax rekk lañuy wax dara fondé ko ci xam-xam parce que dañoo xamut seen maam fu mu jaar ak malaaka yi ba yàlla jox ko résultat ba tax mu wàcc ci kaw suuf si kenn du foye xam-xam kenn du fooyee boroom xam-xam mbokk yi yàlla buur yàlla yërëm ñu yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa taala ne wa id qaala rabbuka fàttalikul keroog ba sa boroom waxee lil malaikati malaaka yi ne leen aa ah, inni jaailun fil ardi xalifatan man de dinaa wàcce dinaa tëral benn institution ci kaw suuf si kama fa war a wuutu damay wàccee ab jëmm ci kaw suuf si ki ma fa war a wuutu te moo ne am na ñu fi nekkoon ñoo xamante ne dañoo nekk ci kaw suuf si di yàq di def lu bon di tuur deret ñooñu la malaaka yi gis ba tax na malaaka yi tontu yàlla ñu ne ko xaalu ñu ne ko moo ne yàlla atajalu fiha da ngay wàccee ci kaw suuf soosu man yufsidu fiiha ñay yàq ci kaw suuf si waaye du ñu yem ci yàq bi rekk wa yufsiqu dima aw wa yasfiqu dima dañuy tuur deret wa yasfiqu dima dañuy tuur deret di yàq ci kaw suuf si moo ne kooku nga nar a wàccee ci kaw suuf si ah yàlla bu dee ñun la de wa nahnu nusabbihu bihamdik ñun dañuy sabbal di sant sa xéewal yang ñu xéewalal wa nahnu nusabbihu ñun de bu dee ñun nga wàcce ci kaw suuf si ñun dañ lay sabbal di tudd sa ca laange te di la sant ci xéewal yang ñu defal wa nuqaddisu lak waaye dañ lay màggal ci sa dayooy yàlla ne leen buur yàlla tabaraka wa taala ne leen qaala inni aalamu maa laa man yàlla xam naa la ngeen xamul waaw gis nga fii yàlla utiliser na dafa utiliser xam-xam mu ne leen inni man yàlla aalamu xam na maa laa taalamuun la ngeen xamul moo ne léeg-léeg nga gis kenn ku war a utal nit ki visa war kaa yóbbu fenn du ñàkk mu am ku ñëw jaar ci suuf ne ko moo <laughs> yow ki nga war a utal visa de kii de boo ko yóbbee fee dalay jàmb dalay wor léeg-léeg ngi dégg ko ci kër yi waaw ki ma xam mu war a yóbbu soxnaam bitim réew am ñu taxaw naan ko ne moo ne boo ko yóbboo mooy ne wor na la dalay bàyyi de waaw dalay wor nga gis soxna si nekk bitim mu war a yóbbu borom këram ñu ne ko moo yow yaay yóbbu sa borom kër ki moom boo ko yóbbee moom mooy lool dalay wor léegi léegi fii lañ ko fekk ñoo tax malaaka yi ñu ne yàlla waaw bu dee ñun nga wàccee si kaw suuf si de wa nahnu nusabbihu bi hamdik ñun dañ lay sabbal di la sant ci xéewal yaa ñu defal lu yem foofu wa nu qaddisu lak dañ lay teral dañuy wax sa tàddaange waaye dañuy màggal sa tàddaange yow yàlla dañuy màggal sa dayo yàlla ne leen bañu ma ko de waaye nag lu fi nekk mooy ah yàlla ne leen qaala inni aalamu maa laa taalamuun man xam naa li ngeen xamul waaw léegi nag pour affaire bi war a mën a antu dama leen di tegal épreuve dugal leen saalu examen kon école tijina na yàlla war naa dugal ñaari élève ci biir kalaas yi ngir ñu war a mën a passer benn épreuve ba leen tegal diggante benn élève ak élèves yu bëri ñi nga xamante ne mooy mennum élève boobu mooy aadam élèves yu bari yooyu mooy malaaka yi léegi yàlla créé na école école bu luxe am na table ban am na lépp waaw léegi nag examen bi benn cinq minutes la wala benn dix minutes tey léegi matériel ya nekk ci biir école bi taabul banc ya nekk ci biir école bi tableau ba fa nekk ak lépp lu école di soxla si jumtuwaay yàlla duggal na ko ci biir kalaas bi léegi malaaka yi ñëw nañu xamuñu nu ñuy duggee gis nañ aadama dugg ñu topp aadama duggaaleeg moom gis nañ aadama toog ñu ñu géem a toog waaw bu fekkente ne woon aadama toogutoon malaaka yi du ñu toog waaw lu jiitu loolu yàlla moo ne wa allama aadama al asmaa kullaha bur yàlla ne man maa xamal aadama lépp amul dara lu des la ko xamalul waaw lépp laa ko xamal waaw lépp laa ko xamal waaw wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla xamal aadama lépp mboolem seen amul dara lu des lu dul aadama xam na ko yàlla mémorisé na ci boppu aadama la nga xamante ne loolu la war a wax bu question bi jubee réponse beeg jawaab beek ansarin beeg ñoom seen lépp bur yàlla dugal na ko ci mémoire aadama aadama mémoriser na ko logiciel ba yàlla installé ci boppu aadama léegi yàlla ne malaaka yi ne examen bi daal lu gàtt la waaw lu gàtt mooy ne turu bagage yi fi nekk turu matériel yi nekk nii ngeen jàkkaarloo ki ma wax turu yi ñoo ñu ñoy wàcc ci kaw suuf si malaaka yi di xool matériel yi xamuñu leen malaaka yi di xool matériel yi mënuñoo wax turu matériel yi mënuñoo wax table banc mënuñoo wax zinc mënuñoo wax mur mënuñoo wax tableau mënuñoo wax dara lañu gis ci biir classe ah <laughs> yàlla ne comme léegi yéen ndegem mënu leen wax lii léegi xaar leen ma laaj aadama moom bu ko waxee bu fekkente ne méngoo na ak tur su ko defee moom mooy wàcc la yàlla xamal aadama xam-xam boobu nekk ci boppu aadama moo tax mu ne wa summa aradahum alal malaikati yàlla daldi gaaral malaayka yi mu ne leen fa qaal yàlla ne malaaka yi ne ambi uuni ni ngeen ma wax asmaai haulaai in kuntum saadiqin wax leen ma turu bagaas yi bu fenkente ne la ngeen ne bu ngeen wàccee ci kaw suuf si noonu ngeen fay nekke bu dee loolu li am la waxleen leen ma turu bagaas yi malaaka yi daal di gëstu kenn ku nekk di xool sa moroom waaw bagage yi nu ñu tudd ñun nu ñu mën a wax turu bagage yi comme mënuñoo wax bagage yi mënuñoo wax turu matériel ya ñu jàkkarloo ah xaalu malaaka yi ñu ne subhaanak ah gis nga ñoom lii rek lañu ñu xam ñu ne subhaanak set ak ca ñeel na la yow yàlla subhaanak mboolem cet ak cellaange ñeel nañu la yow yàlla laa ilma lana ñun xamuñu dara illaa maa allamtana lu dut loo ñu xamal li fi nekk kañ innaka antal alimun hakim yow yaay ki xam lu kenn xamul te sa xam-xam lépp li nga at sa tërëlin lu jub mooy lu màndu kon malaaka yi delloo nañ avance waaw léegi nag malaaka ñoom lu ñu wax ni moom la ñu xam léegi nag yàlla ne aadam qaala yaa aadam yàlla ne yow aadam ambi bi asmaa'i waaw ah, ambi uhum asmaa'ihim waaw ah, ne aadam ambi uhum bi asmaa'ihim nang leen wax turu yi comme malaaka yi ñoom mënuñoo wax turu matériel yi mënuñoo wax bagaas yi ñu jaakaarloo ni kon yow aadam nang leen wax bagaas yi nu ñu tudd keroog la aadama wax wax woo xamante ne tey ji képp ku yàlla bind nga nekk ba ni aadam làkk bi ngay làkk la ci gën a xóot jëmmale ko ci jumtuwaay ba nga war a jëfandikoo keroog la ko yàlla xamal aadam aadama tudd ko yow tey jii nga di ko tudd waaw ca ngay déggee suñu mbokk wolof yi nga xamante ne yàlla dogal ci seen làkk bi lañuy ñuy waxtaan ak yéen keroog la suñu maam aadam wax jumtuwaay ba suñu yaay yu njëkk yi doon jëfandikoo lu mel ni leket ak mbàttu ak la nga xamante ni mooy gënn ak kuur gaal mbaal ak li ni mel waaw keroog la suñu maam aadama wax ay wax yu xóot ci ay làkk yoo xamante ni lu jiitu làkk yi di yàqu ñu di ko njàmbaas ak leneen la ci bokkul làkk original diggantaan boo duggee bi ci biir keroog ngay xam ni ndekkiti lii la suñu maam aadama waxoon ne lii nii la tudd tey lay làkk yi yàqu ñu daldi ko moderniser déformer ko voilà lekkukaay yi ñu di ko tuddee tur bu duppe ñu ko tubaab bi di woowee léegi lay làkk yi commencé soppeeku waaye boo duggee ci langage boobu ci di biir au ci ngay gis la suñu maam aadam waxee jumtuwaay wi nga xamante ne moom la tuddoon keroog ba mu doon wax malaaka yi la matériel yooyu tuddu moo tax yàlla ne qaala yaa aadama ñu ne aadama ambi uhum bi asmaihim waxal turu matériel yi nga jàkkarloo nii keroog ba ko aadama waxee moo tax yàlla ne falamma amba'ahum bi asma'ihim keroog falamma amba'ahum bi asma'ihim keroog bi aadama waxee turu matériel yi ci kanamu malaaka yi yàlla ne leen qaala alam aqul lakum inni aalamu gayba alsamawati wal ard xanaa du lii laa maa gën xam te maa fi nekk xam maa fi des di xam lépp lu nëbbu ci juróom-ñaari asamaan ak lépp lu nëbbu ci biir juróom-ñaari suuf si wa aalamu bi léegi xam naa maa tubuduuna la nit ñi di nëbbu wa maa tuxfuun wa maa kuntum taktumuun ak lépp lu nit ñi di làq waaw lépp lu nit ñi di nëbb xam naa ko lépp lu nit ñi di làqu be fu làq yem yàlla ne xam naa ko waaw li nga nëbb ak li nga làq yàlla ne xam naa ko waaw ne wa aalamu xam naa maa tubduuna li ngeen di nëbb wa maa kuntum ak li ngeen nekkee taktumuun di ko denc fi nga xamante ne foog ngeen ne kenn du ko fa gis wala kenn du ko fa fekk yàlla ne maa xam loolu balaa ngeen di ko def ndax léegi-léegi doomu aadama seytaane jaare ko foo xamante ne da ko naan lii kenn du ko gis waaw kenn du ko gis waaw loolu kenn mën na kaa bañ a gis waaye yàlla du ko gis moom loolu moom kenn du ko wax kenn du ko xam waaw kenn du ko xam loolu mën nañ nañ kaa dégg te nañ ko déggal tamit loolu mooy dégg kenn du ko xam waa yàlla du ko xam moom loolu kenn du ko wax waaw kañ moo tax yàlla ne waala moo xam naa maa tubduuna li ngeen di nëbb ak li ngeen di feeñal wa maa kuntum taktumuun ak li ngeen nekkee di ko nëbb wala di ko denc defe ne duma ko gis wala duma ko xam déedéet yàlla ne laata ngeen koy jëf sax xam naa ko allahu akbar kon mbokk yi lii bokk na ci njëriñu xam-xam waaye bokk na ci njëriñu sàkku xam-xam waaye bokk na ci ngir ñu yóbbu sa doom fa muy sàkkoo xam-xam waaye dafa bokk ci ngéneel ba nekk ci yow mi joxe xam-xam sa dayo ci kaadaru xam-xam lii mooy leneen réew mi fm 97.5 andil ngir ñu fas yéene ko wéttalanteeg mbokk yi ñu ñaan yàlla di ko ne waqul rabbi zidni ilman di ko ne subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimun hakim yal nañu yàlla boole may xam-xam amuñu dara lu ñu xam lu dut lu ñu yàlla xamal ndax yàlla mooy borom xam-xam bu màgg bi waaye moom la xam-xamam wóor lépp peek lépp te mu ànd ak àttem bu màndu gi ndax aaya bii la malaaka yi delloo yàlla ne ko yaa fi nekk di ñu xamal la xamul waaye nag yow yaay aji boroom xam-xam boo xamante ne yaa xam lépp te lépp li nga xam ci sa àtte bu màndu bi ci loolu la tegu ñu nit ñu jukkil leen aaya woowu àndil leen ko ci pénc bi ngir ñu fas yéene koo ànd ak ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci Rewmi FM 97 point 5 di ngéneelu xam-xam ñu ñaan yàlla suñu boroom yan nañu yàlla may ñu dugg jàmm ci année scolaire bi yan na yàlla remplir xelu tout tànk yeeg boppu xale yay sàkku xam-xam xam-xam buy njëriñ askan bi amin ya rabbal alamin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 wa lakum min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu